Cheikh Mouhamadul Xabaan mii jëmee ko ci ñëpp ginnaaw bi nga xamee ne nag Sëriñ Muntaxa dunoo yónni woon ci moom waaye la jiitu mu dinu yónni ci moom Sëriñ Mouhamadul Xabaan mii ginnaaw ba nga xamee ne mbokkam mu baax moomee di jàmbar jooje di jëwriñ jooje di Sëriñ Maam Mor moomee nga xam ne jataay yii moom lañ ko daan bokkal mu àndoon ak Serigne Mountakha liggéey bi Serigne Touba bii féete woon ci wàllu yaatu gii di wàllu alxuraan ji taxawal ko alxuraan ji sëñ Mamoor liggéey ci liggéey bu réeréy bu yaatu yaatu bu rafet rafet te doon ko ànd ak bokki taalib yi fi toog yëpp ba kenn ku ci nekk ba sëñ Mamoor wàccee da ngaa jàpp ne yow yaa ñàkk ndax yaatalu sëñ Mamoor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 waaye nag mu ne ma neel sëñ Moodu Xabaan na dëgër na jàpp na dem dana ko def niñ ko bëggee mu ne sëñ Muntaxa teg ci ne ni ko taalibe yi wax ni la amee mbirum sëriñ Tuubaa mu tànk ginaaw tànk kanam rek xam na ne sëñ Muntaxa mu ne ma neel sëñ Moodu Xabaan liggéey bi day gën a jëm kanam day gën a yaatu day gën a rafet day gën a mel niñ ko bëggee rek waaye dara du ci dellu ginnaaw dara du ci yàqu lii la ma sëñ mom naa ko sëñ Moodu Xabaan mu ne woon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 danañu ko defee noonu sëriñ bi ñu ngi lay yeesalal ne noonu ay bi rek lañ yoo xam ne ndigalu sëriñ bi rek moo ñu bàyyi fee ñu nekk fa ñu ko yéene génn fii feeg ñu ngi dund nañu sëriñ bi digale woon ñu ànde ko ak sëriñ Mame noonu la ñu digale ñu ànde ko ak yow kon nag wàlla nga xam ne ñun fi lañu féete na sa xel dal ci ne lépp loo xam ne ni luñ la war a jàppale la ci liggéey bi nañ ko daan defee sëriñ Mame Mor duñ la ci dencal dara day yokk waaye dara du ci wàññi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 bëgg ngeen xam ne. sunu dund gépp mooy topp seexul xadiim. mooy topp seexul xadiim. te moom mooy seexul xadiim. te ñun ñëpp bir nañu ne. lépp lépp lu mu sant. lépp lu mu sant. moo nu cay jiitu. moo nu cay jiitu. kon nag yàlla na ko fi yàlla yàggal. kaddu gi mu jox di ko di ko santaane ci njàngum alxuraan. kaddu gi mu di ko santaane ci njàngum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 waajuram wa gàttandu ko. waajuram wa gàttandu ko. Serigne Touba fay ko. Serigne Touba fay ko. ci jëfam jëm ko jëfal fii. ndax noonu kat dañoo ñëw rek nekk ci kanam waaye defuñ dara. ndax noonu a def lépp. a wane na aw woo xam ne. dañuy jaar ci yoon wi dem rek. kon nag nañu ànd sëriñ bi.